Effectivement, parce que euh, les élections, euh, on l'a gagné sur la base d'une coalition, naturellement. Euh, une benn coalition boo xam ne qui fait à peu près deux cents partis politiques et mouvements alliés euh, yàlla def aussi euh, mu nekk benn coalition bu bu ànd boo xam ne nii dañ ko dañ ko bu franc ñu ko teg aussi si dëgg et que je peux dire même euh, toute la coalition amul benn promesse boo xam ne nii poste électoral boo xam ne gars yi def nañ ko donc avant les élections même après les élections déjà si on regarde bien la formation du gouvernement euh, on a à peu près quand même euh, deux ministres et un directeur de cabinet qui fait partie même euh, qui ne fait pas partie de Pastef et qui fait partie de la coalition ce qui veut dire que aussi mbir mi comme ni ko le président son Sonko le premier ministre waxee woon euh, on y travaille mais on va mettre devant les compétences et autres même si que les compétences am moo ngi fi Donc, euh, en matière de politique aussi, euh, il y a un élément qui est très important. C'est, un, c'est la patience. Deuxièmement aussi, c'est l'intégrité et aussi le changement. Donc, euh, fu mu toll nii ñun mun on ne peut pas apprécier que nous am na benn de boo xam ne pour le moment jox nañ ko effectivement moi qui vous parle je suis ingénieur et spécialisé sur les questions de la mobilisation des ressources en eau et du foncier donc euh, qui est présentement à la direction des impôts des domaines comme étant euh, au cadastre je travaille là un cadre donc pour wax ne euh, mbir mi on peut servir l'État à tous les niveaux et que aussi ànd politique nekkul ànd boo xam ne dañ ko war a tënk si mm-hmm. effectivement loolu laa bëggoon wax ni léegi euh, tout le temps hier euh, tous les week-ends ñu ngi woon Kaolack pour faire aussi des activités ñu tuddee aussi la concrétisation de promesses électorales parce que aussi bu ñu nekkee ci dëkk bi di def campagne nous avons aussi euh, eu l'occasion de parler avec le peuple avec la population sénégalaise ne leen lii bëgg nañ leen ci gunge ci cadre boobu nag à tous les niveaux mbir mi processus la ki loo xam ni day dox aussi dans le temps euh, on na accompagné aussi la jeunesse par rapport ñu ñu ñu amoon benn trophée bu ñu leen wax naan la trophée le trophée des du génie donc aussi les meilleurs élèves de la de la de la de la région de Kaolack euh, dolliwaat si aussi des activités de sensibilisation par rapport ak euh, lijjanti kayitu juddu expliquer leen ko sous forme de conférence et autres yéen def nañ ko Kaolack ànd nañ si woon encore avec euh, une association benn école qui évolue dans l'éducation et sport pour di leen di accompagner avec la fourniture des maillots les des diplômes de reconnaissance ainsi de suite ainsi de suite comme ni ñu ko waxee rek. mbir mi on fait de la politique lu si ëpp solo mooy jege la population accompagner leen par rapport ak ñun lu ñu mën ak loo xam ne ni aussi mun nañ daan au niveau du gouvernement lépp loo xam ne ni aussi population mën nañ ci jëriñoo ñu nekk seen relais entre ceux qui sont au niveau de la base et ceux au niveau central